طيب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي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 Dakar Buzz ñu ngi fii tey euh, ci guy gi ci ab Abdou Ndiaye ñëw nag fekk fi benn tiis xale bi nga xam ne dafa toppoon convoi li nga xam ne mooy lion yi bi ñu leen doon teeru demb mu yéegoon nag ci benn avion daal di daanu ba mu daanoo nag suñu borom dogal mu ñàkk bakkanam ñu ñëw fii tey seen kër fekk fi nga xam ne mooy magu papaam ak papaam mais magu papaam nag moo nekkoon nag ñoom papa ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay bu baax maa ngi leen bu baax. tur bi naka la. man Abdou Kanté laa tudd. Papa Abdou ñu ngi leen di masawu ñun waa Dakar Buzz di leen wax si gileen leen ndigaale yal na ko yàlla yërëm. allahumma amiin Dakar Buzz Dakar Buzz. ñi nga xam ne yaa nekkoon ak ñoom lan nga ñu mën a wax ci décès bi. Euh, avant tout décès bi moom dimanche la tombeel dafa am ñoo xamante ne samay dëkkandoo yu ndëkk Rochette doon def kii euh, maam jaara ngontu maam jaara mu demoon ci daay ngontu ji nag. ba ay après après géej daal avant match bi tas moom bi mu egsi ci kër gi bi match bi tas benn la sa dañoo comporté wa daayira ñoom daayira lañ xam daayira la ñuy dem événement bu mën ci am ci koñ bi ñoom daayira lañ bëgg léegi bi mu demee daayira ba ñëw nag bi mu bi muy dugg ci kër gi sol yëre daayiraam bi xale yi dawee na Sénégal qualifié gagné na rek Sénégal am na coupe rek affaire boobu jàpp ko rek mu si si muy yëre daayira bi ànd ak ñoom ànd ful bi dem dem man damaa toog même pas dix minutes sama rakk bu jigéen bi téléphoné ma dama Abdou man ko waaw mu ne ma yëg nga ne soxna Awa oto da laal ci talimaam jaare bi ma ne ko loolu de yaa ma ko wax ma ne kañ la mun ne ma léegi nijaayam sax jël na ko fekk na ko ci tali bi gisul benn ku ko assisté nijaayam fekk na ko ci tali bi. jël na ko mi ngi ko yóbbu hôpital man xaana moom dañ ma xaar dañ ma xaar mais bi ma demee kër maamam fi ñu ko teewoon fekku ma ko fa fekku ma leen fa ñu ne ma mën a ñu ne garaawul garaawul garaaw mi ngi mi ngi hôpital man leen garaawul moom mun ma damay continuer hôpital léegi bi ma continuer hôpital hôpital caaro Thiaroye Pikine bi dama continuer foofu fekk leen fa sama sama petit frère bi moo fa nekkoon ak nijaayam léegi bi ma dikkee ci porte bi ñu ne ma doo mën a dugg foog nga xaman nag kenn génn nga dugg ma woo kii mu ñëw sama sama rakk bi bi mu ñëwee génn ma ñëw dugg bi ma duggee urgence mun ma egg si biir parce que nijaayam la fa nekk lool nijaayam moo li ci war lépp moo ko ci taxaw moo jënd ñu koy wax sax ana analyse yeeg rajo yeeg ordonnance yi ñu ci jot def yëpp moom moo moo ko ci def ma e, bi ma essayé bi ma fekkee ci bunt ñëw nuyu loo xew ci biir mu ne waaw léegi daal li ñu bëgg a analyse kii rajo tànk bi mais daal dafa metti daal léegi bi ñu ko fexee bañ def ko analyse nag bi résultat yi génnee nag nekk naa fa mu nag ba ay une heure du matin deux heures du matin lépp di patienter rek léegi bi nga xamante ne kii bi ñëw numtu nga xamante ne nga xamante ne médecin bi xool na ko ba dugg résultat yi génn dafa ne ma kii moom danga koy évacuer yóbbu ko CTO hôpital xam ma nan puy waaw ne ma foofu nga ko yóbbu léegi bi ma ko bi ma ko yóbboo foofu tamit lépp pour sauver ko rek aw ma ambulance oto taxi bu ma wax pour mu yóbbu ma foofu mu ne duma dem xale yi mooy lool dañu yàq sama oto dama mujj woo sama petit frère bu nekk fii ne ko yow rek yaa fi si ñëwal jàppale ma te boobu maa ngi ko teg nii ci pousse pousse yi nii moom dong muy souffrir muy souffrir muy metti lool. fexe ba ñëw bu mu ñëwee mu jël ma mu yóbbu ma CTO léegi bi ma demee CTO itam la même chose dama leen wan kii ne la waa kii de hôpital Kancaaro ñoom fi yebal ñu daal ne ma dossier yi nga jëlee fële yëpp moom da koy teg ne yii da ngay ubbiwaat beneen dossier heureusement bi may dem sama sama pëtësër bi nekkoon fii jox na ma trent 000 ma jël 30 000 ànd ak moom léegi bi ma demee. jël dossier bi ubbi ko dem fay lim dama bala ñu ko laaj urgence 7500 ngay fay ma fay 7500. defal ma ñaari rajo ne may rajo yi foog mu def ko rajo yi bu nekk comme 20000 daal la ñu wax laa koy fay bi ma def facturation 20000 la ñu wax laa koy fay ma yëkkati 20000 fay leen. bu ma leen fayee dem dem rajo patienté patienté parce que maladie ma fekk bari na ma fekk bari na trop trop trop trop trop léegi après par la suite. ñu defal ma rajo ma génn ñëwaat urgence ñu fexe ba indiwaat ko urgence ma di patiente boobu mi ngi nekk ay 3 heures demi 4 heures du matin léegi bi nga xamante ne médecin bi génn ba war ko xool ñëw jël dossier bi xool daal ne avocat bi fekk instant yooyu mi ngi souffrir nga naan papa damaa bëgg naan papa damaa bëgg nga yëkkati ma li tollu lépp. léegi bi kii génne médecin bi di kee daal basin bi fii basin bi moo toj. ak ndigali Mawadam dossier yaa ngi fii ci biir sax ma téye léegi nag léegi nag ba ci yàgg rek mu ne papa damaa bëgg naan mun ma ko jox ndox mu naan papa damaa bëgg nelaw mun ma ko nelaw ba ci yàgg rek mun nelaw ma yaakaar ne man day nelaw ma yaakaar ne day nelaw man léegi bi demee ba nga xamante ne médecin bi ñëw na pour moom war ko jël war ko war ko yóbbu bloc mu xool ko dikk daal ni ko ni awa awa raisonné wul nijaay ji kii laa àndal kii moo ma doon jàppale kii nijaay ji moo ko yóbbu nijaay ji tamit jëkkati benn ko bi awa awa awa awa nangu ta raisonné médecin bi arrière daa xool ne elle est sama àdduna nag moom fa la tukkee wax mënatuma def dafa doon am nijaayam bi moo ko doon def ku téléphone war ko yëg moom moo ko yëg mënu ma ci wax dara mënu ma ci def dara moom moo def lépp moo wax lépp mi nii man mënu ma ci def dara ku kilifa gu ko war a yëg moo ko yëgal kilifa gu fa war ñëw fekk moom hôpital moom moo ko wax man daal fa ànd naa foofu daa procédure daal te élève la woon tamit élève cinquième CM 44 la doon jànge CM la doon jànge. entre entre 15 ans 13 ans daal 16 ans. 16 ans waaw parce que fi école arabe laa ko dugaloon fii mu jàng ba yàlla dem mu am dem fële. kon moom jour dimanche bi la doon jubilé daal ci la ko affaire bi dalee. Eh bien jour dimanche bi daal la doon jubilé te bi muy jubilé tamit dégg naa man fekkewu ma ko mais nag benn oto plateau bu nekk fii moom moo doon jubilé moom moo ñëw xale yi yéeg yi jubilé xaw ma mu def parce que man accident mënu ma la ci wax ne lii laa ci fekk lii gis parce que fekkewu ko. ma la wax rek lii moo ko blessé fekkewu ma ko même papaam bi itam nekk fi woon. mais ñi ko fekkee waxuñu la dafa daanu wala da doon daw oto bi laal ko. non oto bi moom bu ko laal moom mu nàcc mais gisuma fu mu nàcc moom mais li ma ëpp li ëpp li dossier yi moom nàccul moom hémorragie interne daal lañ wax ci biir daal moom nàccul deful dara nàcc gisuma fenn fu mu nàcc moom mais nag moom li dam moom ak li yàq moom ci biir bi la yàq moom li ñu wax. loolu rek laa ci. gis ngeen borom oto bi. borom oto bi ko man. ñëw fi tamit. gisuma ko ex bu déggoon ma gisuma ko gisuma ko gisuma ko gisuma ko gisuma ko defar naa samay def naa dossier rek jox na ma dem naa hôpital ñu jox may dossier indi ko police bi indi naa ko police bi delloo delloowaat naa ko hôpital waa hôpital joxaan may dama foog ñu defal ko kii autopsie te ñi ñoo la jox ñoo la jox këyit bi bu tawar a tax ñu def ko jox naa leen kayit bi jox nañ ma këyit bi indi naa ko ci commissariat bi defal nañ ma këyit yóbbuwaat naa ñu defal ko autopsie pour ma jël sama koor nag moom dem naa ci tribunal dem naa ci police jekki si naa procureur ban jox ma sama corps daal démb nag laa ko denc Touba. ah yóbbu ngeen ko Touba. naa ko Touba ba denc ko tey jii tey jii laa ko doon ñaanal waaw. kon na ko yàlla gisuma sëfoor gisuma kenn daal koo xamante ni ñëw na fii ne ma masa wala ne gisuma ko gisuma ko kii nag papaam la moom fekk fi moom dafa fekkoon mu tukki liggéey ba démb la ma ñëw fekk ma hôpital ñu ànd li ñuy dox lépp dox ko ba jot ko daal incha allah papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. bi naka la. tur bi Cheikh Kanté la. papa Cheikh ñu ngi lay masaw bu baax di ko ñaanal yërmande yàlla. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yal yàlla bi tuyaaba. awa mooy sa taaw wala. awa de moo topp sama taaw moo topp sama moom rek nga am si jigéen. déedéet am na rak am na rak am na tey jii bañ la waxee xabaar boobu lan nga yëg en tant que papa. waaw mais douleur rek métti métti rek métti métti rek. parce que man Louga laa nekk fa laay liggéeyee quoi Louga laay liggéeyee nekk di ñaw may seetaan match bi toujours dimanche parce que ngoon parce que sama place laa ko seetaanee ak match bi jeexee sama place laa toog toog toog ak sama benn copain après ci la ma yóbbu ma ñibbi ba ma ñibbee juste ma eggee sama kër rek lañ ma ne la ma benn yaayam woo Serigne ne ma awa dafa def soog ba am damb am am am waxoon rek fan laa ko defee mu expliqué ma ne ma ñu ngi nii hôpital nag après ci laa woo grand bi grand bi moom yorul portable am bàyyi ko si kër gi ñu ne ma bàyyi portable bi si kër gi ñoom nag si lañ dem hôpital ba li xew-xew ci daal li xew-xew ci waaw après man ci laa jógee Louga ñëw taxawu ko ba denc ko ba jébbal ko suñu borom tey doon def ñaan gi tey. waaye nag na trop yàlla rek yàlla ñu ko joxoon moo ko jëlaat. man laa ñu ko joxoon ma ko jëlaat loolu dëgg yàlla suñu xarit la woon xaritu waa koñ bi yëpp la woon xale bu amul benn benn problème boo xam ne vraiment moom moom wax dëgg yàlla moom macha allah daal macha allah am nañ ci moom yaakaar bu baax naa di ko muñ loo yàlla rek tey oto bi nga xam ne moo ko laal wala si la yéegoon ba daanu kenn xamul borom oto boobu tey yéen nan ngeen di xaar ci moom ndax war na ñëw mu jaale leen yéen nga xam ne yéenay famille bi comme que def nañ autopsie tamit lan di xaar ci li nga ne ñoo yor sécurité réew mi. waaw autopsie moom comme def autopsie moom liñ ciy xaar moom mooy bu dee yoon da cee war a def liggéeyam mu def ko ci. bu yoon da cee war a def liggéey rek mu mu mu def ko ci daal parce que. borom oto bi damaa jàpp xaw ma da koo yëgul xaw ma ko mais boobu ba léegi gisuñu ko gisuñu ko daal man mi aussi dama nekkoon si dëj beeg yooyu mais dama ne damay ko fay ko mais dama nekkoon si dëj beeg yooyu moo ko bu dee daal lu ci woon kii war a def daal ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ah, ñu ne fay bu baax a mi nga xam ne yaay nijaayam yaa ko jëli woon yóbbu ko hôpital ba nga ko fa fekkee ci ban anam nga ko fekkee. waaw moom day xanaa dañu dellu di santal yàlla bu baax rek ndax doomu moom yàlla moom mooy def lu lu ko neex rek waaw man sama place laa toog sax mag yaayam léegi doona ak ba mu am benn lii bu ñëw benn xale bu ñëw daal di daal di comme ça ni wa waaw waaw yaayam daal na ko kii daal mi ngi fee tëdd ah awa ngi fee tëdd léegi yaayam di dem sax man amaguma woon lu xew nag après la ndam ba yegg comme ça ni ma fekk ci benn kii foofu am na ñooñu comme ça ñooñu boor boobu dañuy jaay diw. moom la ma fekk ci biir foofu mais boobu maa ngi dem comme ça ma fekk ko ma naan ma ama ah, bëri yee fulu waaw comme ça ni yaram bi tamit daa diis maa ngi fekk sax benn waay comme ça ni mu koy jéem a ranger noonu mais moom comme ça moo woo sax daan na ma léegi comme ça comme ça nii woon ñi daal woon ñi nga yóbbu ko. waaw dañ koy laaj dañ koy laaj maa ko woo dañ koy laaj. moo ma wan sax noonu koy teewee. ma téye ko yóbbu ko comme ça na duñ kër ndaw waaw sax ama benn jarbaat laa woo sax comme ça comme moom laa woo comme ça nii comme ça waaw après nag comme ça biir foofu noonu dañu dem dañu dafay la dagal foofu dikkee dagal ko faa comme ça nii foofu rajo foofu daan nañu daal kii lii bi la comme ça nii de bassin la daal xaw ma nga waxee noonu nag waaw foofu noonu après rañu dañuy dina laat ay këyit. comme ça ko séddoo waaw léegi comme ça nii ci mbir mi yëpp comme ça moom nañ waxtaan ak man sax ba mu yóbbee ba séddoo lépp comme ça nii nañ nañ waxtaan ak man daal. waaw ñu naan man comme daal ni ma koy laaj ak yëpp waaw. ma ma naan man. ndigg bi mooy metti moom ma doon wax daal waaw moom daal xam naa ne moom. jërëjëf yow mi nijaayam yal na ko yàlla yërëm. mbokk internet Dakar Buzz ñu ngi toog ki nga xam ne mooy xaritam te bi fee bi di am tamit moom la àndaloon moom moo ko fekkee ñu ngi lay masawu bu baax nan nga tudd. Amandé. yow yaa àndaloon ak moom. affaire bi fan la ko dalee fan la amee accident bi. avant ñoo yëg guy ga. oto bi moo ko laal wala dafa daanu. da daanu déetew. ci oto bi la jóge daanu. daa wax ma may ko loxo ma koy may loxo mu aju si kii bi mu tegu si weñ bi oto bi départ weñ bi daal di koy weñ bi daal di koy wëndeelu mu daal di déeteelu daanu. da ko doon may loxo pour mu yëg ci kaw oto bi après oto bi départ. oto du doon kii da doon pour dem weñ bee wëndeelu mu taxaw si weñ bi weñ bi daal di koy déetteelu mu daanu. bu mu daanoo. bu mu daanoo après si dara. bi ànd ak oto bi dem wala danga nga wàcc. dama bëggoon a wàcc oto bi départ mu dem ba si kanam mu taxaw après si la wàccee. ñu wàccee ñëw da fekk ñu yóbbu ko wala. maa fekk ñu teg ko ci côté Marodi noonu. léegi après ma dem laaj yaayam ana Awa Kanté mu ne ma gisuma ko après ma tasante benn xale mu ne ma sa xarit baa ngi fee toog ñu téye ko après ma daal woo yaayam ma ne ko kii. mbokk internet Dakar ba gis ngeen métti na lool xaritam bi mënul sax wax yaayam a ngi jooy mbokk yëpp ñu ngi jooy ñu koy ñaanal nag yërmande yàlla di ñaan suñu borom yërëm ko di ñaan tamit ki nga xamante ne moom moo ko laal wala moo doon départ xale bi daanu bu dee gis na lii mu ñëw li nga xam ne mooy ci kër gi jaale masawu leen ñu ngi koy ñaanal yërmande yàlla jërë ngeen jëf.